عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الله وحده والصلاة على عباده الذين اصطفاه mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax cant goo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu euh, di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teewu ñëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw euh, di li wax ne li waykat ba waxoon bu ma neexee waxaat ko ida seddama bi kaana afdalu xiilati lahu wadu kaffi fawqa xarji wa askutu woykat bi mu ne li ma jaaxal ba ma jaaxale ba xaw ma nu may def damay jël sama loxo rek teg sama ngaam rek ne pat ndax euh, cheikh Seydi Ali ibnu cheikh Mouhamadou Nazir moom mooy sangu jotaayam ci yoon moom moo waroon yore kàddu gi waaye ndigal la joxe ne nañ ko ci wuutu mu ànd ak ndigal boo xam ne bàyyi lemin suñu mag mooñu ñu yebal sànq pour ñu ñëw boole ko ndigalu ku mag ki nga xam ne euh, mooy Seydi Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Amin wakilu daat mi nga xam ne Cheikh Aziz da koy faral di tudd lu bari waaye tudd yooyu yëpp ngëneel la ci ki koy tudd ak ki muy tudd Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ci woyam yi mu ngi naan fa inni wakiilul xubbi usqiitu ka'sahu wa inni bihi kal wurqi dahran ugarridu sa'urisuhu nasli summa kulla ahibbati ila muntaha dunya wa ma huwa abad Cheikh Mouhamadul Amin mu ne man maay wakiilul xubbi man maay mbëggeel yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man mii lañ ko dégg mu ne euh, mu ne loolu nag mooy nekk sama màndarga ba ilaayawu di ñu koy xam waaye li ci gën a neex mooy lim ci teg ne sa óori suhu nasli mbëggeel googu dinaa ko donaloo sama njaboot tumma kulla ahibati ak képp koo xam ne bëgg na ma mbëggeel googu dinaa ko def ci moom ilaa muntaha dunya ba fi àdduna bi di mën a yem wala sax wa maa huwa abaadu wala lu gannaaw loolu mbokk yi sant yàlla bu baax ci jotaay bi pour wan la ne la mbiru Baye dafa authentique authenticité bi ñu am mooy lan yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw na fekk ay saxaabaam ñu toog ñu ne leen lan moo leen toogloo fii ñu ne ko dañoo toog di tudd yàlla di ko sant ci bim ñu mayee lislaam ak lépp lu baax lu ñu may yonente bi ne leen yéen ngi seede ci yàlla de loolu rek moo leen di toogloo saxaaba yi ne ko waaw mu ne leen waatloowu leen pour fen loo leen waaye jibril moo ñëw ne ma yàlla mu ngi puukare woo yéen ci ay malaakaam wallaahi beneen bi Seydina Muaz ibnu jëbal solo na neena na lim tàqoog lim mujjee waxtaan ak yonentu bi daf koo laaj ne ko ban jëf mooy jëf ji gën yonentu bi ne ko mooy nga dee te sa xol baa ngi tooy ci tudd yàlla wallahi lazim tey ngoon gi loolee ñu ci am ah dañuy sant yàlla bu baax ci Maulana Cheikh Ibrahim ndax eh, waykat ba bi mu naan wa inni wa in kuntu l axira zamanuhu la aatin bi ma lam tastatihu l awailu mu ne man mii nii ne bu fekkee maa mujjee ñëw ci jamono danaa indi loo xam ne ñi jiitu yo kenn indiwu wallahi saalum saalum bi indi loo te eh, jotaay bu nekk rek feeñu waayam lay feeñoo li arab yi di wax ne kullun yuxanni ala layla nit ku nekk lam am rek moom lay puukkarewoo ñun lii mooy suñ puukkare lii mooy suñ njëriñ lii mooy suñ avancement dañ ciy sant yàlla bu baax ndax euh, mënoon nañoo mel neneen wala bokk feneen wala nekk ci yeneen jotaay waaye jotaay bii bu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu si waatoon tey dinañ bokk ci ñi muy gërëm ndax bés toog na moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nangu naa samay soppe saxaaba mi ne ah ñun nag duñ say soppe mu ne leen déedéet yéen samay saxaaba ngeen samay soppe mooy ñi nga xam ne dinañ ñëw ëllëg bëgg ma comme ni ngeen ma bëggee wala lu ko raw te mësuñ maa gis loolu Mawlana Cheikh Ibrahima moo ko def ci ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ci jotaay bi duñ guddal dañuy jote jottali yono nuyoo Seydi Mawlaana Cheikh Mouhamadul Amin ci ndigalu Baye Lamine ak képp koo xam ne ñu ngi jotaay bi ànd ak ñun jugee Medina pour teer fekkee ngëneel bii nii ak yéen ndax ngëneel la boo xam ne ëllëg duñ xam sax fan lañ koy fan lañ koy fayee ndax yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne leen yéen de yéen la ma yàlla wax ne bu may rombee naa toog muñ fekkee seen jotaay mu tari aaya boobu noonu naan wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum alayka salaatullahi thumma salaamu fa